bala ñoo ñëw ci mbirum euh, Mirma ak président Macky sàll mi xàll aw yoonam ba léegi di woote toqiwul bàyyiwul euh, te ak Khalifa Sall aw ñooñam nee na ko demal nga wuy ji partem loolu lañ ko wax bala ñu cee ñëw incha allah benn docteur la ñu wax ni dañ ko jàpp mu doon jëfandikoo ko xelam neexul euh, moom nag dëggalul ni loolu am na daal waaye nee na ab gëlam la woon maanaam dañu doon génn waaw nee dañ doon génn bañ ñu demee ba saytu mbir yi ba mu nee nañ ndaw si fekk nañ ci am payam fekk nañ ci loolu nga xam ni mooy man yu waaye docteur ba moom nee na du moom waaye gelam la woon. moom dafa pelante wala. kan. ki xelam néewul. luy loolu. maam da koo yóbbu si yoon. waa ji lañ jàpp rek. de détail boobu après nañu xoolaat mbir. moom da koo naqarlu wala. Assane ñëwal ci li ma la laaj. ah mais noonu vraiment nag nag nag. Ah. pourtant Assane li ah, la. ah léegi noonu ndax ki xelam néexul moom moo. lii lañ bind rek maanaam maanaam information bi la ñu bind. <laughs> Modou Modou officiel ko voilà information baa ngi nii docteur bi sax xam nga bëggu mën a tudd turam mais mi ngi nii bind nañ turam. Ah. Jibril Ka. mi ngi noonu. am léegi na léegi na yem ci li mu wax ay question la léegi man man ci lii laa sukk Modou. ne ko ne ko daaji kaw Modou ne ko daaji <laughs> nee ko daaj <laughs> voilà mi ngi noonu man ci lii laa yow ci lii nga sukkandiku <laughs> waaw ah, xam nga xalaat moom na ko xalaat waaw léegi laaj la la xam nga wax ko ne ko ci lii nga sukkandiku waaw léegi nag Assane mën nga continuer sa développement laaj ah, laaj yi baax na waaw bu ma laaj ak ñëwal eh, léegi man ci lii laa sukkandiku lii damaa xam ne ñun ñii ñi ngi amee gel hmm. ba am soxna yéen ñan ñun man yow waaw. am naa gel ba am soxna. maa ngi sama ñaari soxna. ni hmm. faj samay aajo bu baax. nu dëgg keneen noonu keneen noonu kenn ak ñu beddi ko ne ko yow wéroo ba ko fa kenn tëkk ko kenn lijjanti ko tam war a faj soxlaam nee na nga nee nga muy génn ak moom. waxuma loolu liñ bind laa wax. man liiruma liñ bind li nga wax laay wax. nee nga ñoom ñaar ñoo doon génn. Assane <laughs> liñ bind laa wax. <laughs> <laughs> waaw liñ bind laa wax. <laughs> comme que nag ñoom ñaar ñooy génn ñooy nekk. ah wax dëgg yàlla yal na yàlla suturaal. ah koo génnal da nga caa war a ne. yow kon loolu nga wax maanaam koo génnal ku nekk rek war nga caa koo demee bay hmm. bu fekkee da ngaa tënku si si si si si lislaam wala wërta am. daal wërta am. mais boo jéggee masir ba lislaam aayul génn de. non non non non génn génn génnu lislaam ak ñun suñu génn yi du benn. suñu génn yi lislaam da koy tere. lislaam li wax lu génnee ko non non xam nga xam nga lislaam li mu la wax mooy nga nga dem seeti ko nga waxtaan ak moom bu d'accordee nga waxtaan ak ay waajuram mais lislaam may na la ab diir nga xool ngay nàmpaka raay as no xool xool dama ne non waxuma xool xool lool loolu taxu ñuy wax ñii laa la wax génn bi nga xam ne yaa ngi koy génn même asan xaaral ma xam ne lislaam nag tey su ma ñëwoon kër Sanjoogu fekk fa doomam joo xam dama ko bëgg mu muuru ba ne malaj mm. l'islam may na ma ñu muril ma xar kanam gi mm-hmm. ma xool ko waaw loolu xam nga du génn waaw moom laa lay moo tax dama ne la la may na la ab diir nga xool mais li nga wax waaw li ma wax nii nag dama ne comme que l'islam loolu la la may nga jéggi mesure barrière yi dama lay wax rek du mbirum l'islam mbirum nit ak nit la waaw waaye dama bañ nga dëggal ni kon kuy doxaan nit rek war ngay war ngay jëfandikoo loolu nga war a wax dama la non boo ma digloo dama ni la waaw maam bu dee côté l'islam ñun jéggi nañ ko waaw ndax l'islam mayuñu loolu doxaan waaw loolu loo tuddee doxaan loo tuddee doxaan nàmp raay cuqataan làmb ba xam bañ na lii wala bañut lii nga xam ay jikkoom nga xam ay jikkoom li muy nangu ak li muy bañ bala ngaa takk ndax fii ngay takk nit nga teg ko loxo muy la bañ loolu mm-hmm. mën ngaa mën ngaa takk nit ba indi ko xamoo si dara nga laal ko rab yi rab yi yëngu mu indi la ay problème léegi nag loolu lépp bala ngaa ko takk nga xam li muy bañ bu fekkee day bañ cuqataan nga xam ndax am na ñoo xam boo leen cuqataanee tey kër gi da nga am problème léegi nag loolu lépp boo waaye ba mu séet bi ñëw nga coqataan ko doo andi sa bopp problème <laughs> moo tax ñu may la léegi mais en tout cas daal wax dëgg yàlla samay bu waa ji nañ nañ man daal waa ji maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla suturaal waa ji. amiin yal ko yàlla suturaal daal. pare nga pare nga waaw. jërëjëf lii nag yaa ko wax. jërëjëf maa ngi nuyu suñu yaay ji kër ga euh, soxna euh, kan maa ngi koy nuyu baax a baax. ba dañ am na nopp. Oh, nopp am nay nopp. lii rajo yu Louga yi ñooy su ñooy sur chroniser émission bi maa ngi leen di nuyu baax ah <laughs> rajo Touba di dégg gu ma ñu ngi koy def émission bi seen rajo yi. tamit rajo lay digg. tamit bee lay sa rajo ba. waa jërëjëf maa ngi koy nuyu rek suñu yaay ja kan ca kër gi bu baax ak code. Ah. <laughs> alaaji noo gisee xabaar bi ñu joxe euh, daal tudd turu docteur yi man sax bañoon naa koo tudd ngir peut-être jaru ko woon ab docteur rek ñuy am ca. Mm-hmm. waaye daal ñoom bind nañ aw turam nee nañu daal dafa doon jëfandikoo ku xelam neexul moom nag weddi na lool waaye nee na ab gelam la woon. waa xam nga boo nee li ñu li yëf yi demee nii. Hmm. donc dañoo bind ne ab dof boo dégloo li docteur bi wax mooy dofut. Hmm. parce que bu fekkee ne dañ doon génn. Hmm. kon génnu tëg ab dof kan moo ne dafa dof. ndax ñi booy alaaj jërëjëf non sew sew ay sew bëgg a dugal docteur bi ñoo ñoo ah, bëgg a def. ndaw si dof hmm. pour dugal ko pour pour sànq docteur bi daan ne dafa jël kii hmm. wa ilaa ndaw si dafa dof dëgg parce que li docteur bi ah, tontu moom mooy dofut hmm. parce que man ak moom kii sama gel la dañuy génn donc le fait loolu mooy wet dina lépp ku ne dafa dof léegi nag ndax dañoo yor këyit wuy firndeel nii kay kii dafa dof ndax dañ koo yor wala yoruñu ko loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne xam nga tey son am na ñoo xamante ni bi tëj nañ leen ci kaso yi. Mm-hmm. ñoo xamante ni bi dañu wax ne dañoo violé. Mm-hmm. te fekk ne viol amu fa. Mm-hmm. Mm. pare na saa yi nga gis nit koo xamante ni kii day génn ak nit. Mm. man am na benn waaye boo xamante ni xamoon naa ko koo xamante ni kii yàlla na ko yàlla yërëm génn na mais da doon génn ak benn xale bu jigéen. mais après wut nañ ay kii ba ne daf ko violé te yàlla xam na ni. dafa bu xale bu jigéen bi daf ko dafa ëmbaloon xale bu jigéen bi quoi bu nga ëmbalee bon ay parents kii fexe ba def seeni kii daal ne viol la ba tëjoon ko ci tëj nañ ko mu tëdd neuf ans ci dixième année bi mu waroon a génn yàlla dogal mu génn àddina xam nga loolu mu nekk loo xamante ni bii lu metti la mm-hmm. mais te mu wóor na ne ndaw si ay pression lañ teg ci moom bëggoon na waa ji mais après parents yi mën na teg nañ ci moom ay pression yoo xamante ne bi wax na ni mu appuyer ñu ne viol yoo xam ne moo tax pareen saay kii nga xamante ni kii dañ ne dof la est-ce que carrément ab do ab dof la parce que li docteur bi wax moom mooy du dof waaw comme que ne ñii dañ ne dof la kii ne du dof léegi nag li ko war a mën a se wane ni kii dof la nañ ñu indi spécialiste boo xamante ni moo ñu wax ne dof la na ah, d'accord Euh, Banda Sow jërëjëf ñu ngi koy ziara bu baax a baax léegi définition bi définir baatu génn. waaw yow noonu nga koy définir. waa xam nga génn. sans dépend ci nit ku ne ni mu jàppee génn mais bu fekkee ne da ngeen dugg ci diine moom li son bu wax bu ne dañu indi cadre lislaam dafa am loo xam ne mais booy yi li ñuy tuddee génn. pour ñoom préliminaire yooyu yëpp. ci génn gi la bokk. ah, ah moo tax réew mi toj. Hmm. comprendre nga waaw mais te loolu ay baaraas la yoo xam ne diine dala wax ne la bul jege. lim ne la bul jege li son yi bu wax mooy yi ñu teg moom la Oustaz Seck daan naan bu njëkk ba boo ngeen di kii kii daraan toog fii kee toog fii waaye nee na léegi bu ñëwee kii day mel ni kuy wër kaño gu réer. <laughs> Ah, waaw waaw comprendre donc Oustaz Seck waxoon na <laughs> euh, ay jamono. Mm-hmm. façon bi nga xamante bi noonu lañuy ñuy def. Mm-hmm. daan na léegi boo ñëwee sax yiw faale wuñ la mais kii wër yi moom lañ gën a kii maanaam. Mm-hmm. xale yi jigéen yi koo ci àndal ñaari fan ñett defoo yenn yi ñu ne kii am yambar la. léegi bu ñu demee ba jigéen ñaan dañuy peese góor ñi xam nga fa la musiba am naan góor balaa ngay dugg ci moom mu lay takk peese ko ba xool ba xam la mu yor waaw loolu moom am balaa mbetteel di am xam nga loolu ki lay naa koo dégg ko wax moom quand koo xam ne moom du génn góor mukk te xamul nu mu mel waaw te xamul nu mu mel <laughs> maanaam du ko loolu mooy problème léegi bu ñu ba <laughs> jigéen ñooy wër di xool hmm. xam nga loolu fa la problème maanaam moo lay wan ne la réew mi ju ju dëpp na <laughs> parce que bu njëkk ba jigéen ñi góor ñee ñëw di xool ndax kii waaye léegi yaay xool ndax lee normal na wala normalul foofu la problème am ah. waaw ok ah loolu du problème ah problème bu rëy mais <coughs> bàyyi sew sew yi di génn boo taxit par exemple Assane bu duggee ci sew sewam yooyu da nga koy bàyyi da nga koy bàyyi ak sew sew yi parce que mi ngi wax ci ñi nga xamante ni. mooy mu wax normalu non li mu wax li mu wax mooy war a cokkutaan def yëpp ndax bu ñëwee nga xam li mu bañ. ah xam nga yooyu yeneen clé xam nga tey am na ñoo xam ne boo laalee seen dox ñu xam. xam. waaw ah, dañ naan kenn du ma laal foofu xam. xam <laughs> am na moom a bu wut ab ah. oto da koy essayé bu bu yutu oto da oto jigéen a ah, yi nga jigéen génn naa ca kii ba de eh, demal feneen parce que waa ji waa ji boo continuer mu dugal la ci guuta goo xamante dégg mu naan booy kii da da Assane. joxe yow léegi ci essai nga de. <laughs> ah dama yaakaar nit. kon yow dama dugg si lu mu xamul rek. kon da nga essayé yow. mais dama yaakaar nit dugg si lu mu xamul. non loo xamul moom euh, saa yoo xëyee. ci lay dugg. waaw am na yu bari yoo xam ne moom mënoo. bilaay xam léeg-léeg. moo tax ñu moo tax ñu bari dañoo defe ne ngoro ak takk dañuy am déception parce que dañuy jàpp ne hmm. ni ngoro gi mel. noonu waaw te fekk ngoro takk ngoro ak sëyit dafa kii de. dañoo sore. te am ñoo xam ne moom boo waxee ba ñu def dara moom duñ tàkk de. Hmm. loolu am na. waaw bu baax jigéen ñi moom ñoo war a gën a veiller ci seen bopp ah, rek. yow yaa oto boo ko baax doo doo ko jël. Hmm? yaa yaa wax essayer xam nga Assane yow say wax day. contrat am yoonu Dakar nga essayer ñëw Dakar oto bi baaxee doo ko jël ne ko man. soo oto bi baaxee doo ko waaye bu fekkee nag oto la yitteel. Hmm. waaw bu fekkee Dakar yitteel nga essayer ñëw ba Dakar li jënd say soxla delloo ko joxaat ko caabiam ni ko baaxul wala nga ne ko après <laughs> <laughs>